السلام عليكم ورحمة الله ما نيو نيب كوتي نيك سي تروم اك سانتام غناو بو نسانتي يالا جولي جونتي بو تاد بي عليه الصلاه والسلام ني غرم بو باخ سونو سيرن مولانا شيخ الحاج ابراهيم نياز نيو بو باخ خليفه بو تاد بي خادم الامه شيخ محمد الماحي di nuyu mbooleem rakkam yu góor ak yu jigéen di nuyu Cheikh Mouhamadul Amin nga xam ne moo topp ci moom di représentant ci Dakar di nuyu al imam al akbar Cheikh Tidiane Alioune Cissé di nuyu porte parole bi Cheikh Mouhamadul Mahi Cissé di nuyu mbooleem kër yu mag yi ak mag ñi àndoon ak Baye. fii ci Medina ak ci Kaolack ak ci senegal yëpp nuyu bu baax suñu papa xalifa Cheikh Ahmed Tidiane bu lew nañu seen di nuyu bu baax suñu waa kër maam kër sëñ Touba di nuyu waa lew na keneen di nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kàddu yi nag du gudd allah dañ koy tënk rek ñu ngi nuyu bu baax di gërëm d'abord bureau mouvement ànd dooleel Abdoulaye muy bureau Madane wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ay góor lañ ay liggéeykat lañ ñoom ñëpp bu ma nuyoo ñoom nuyu naa jigéen ñëpp nga xam ne ñoo man ci xare yi ñoo man ci lépp te Adja Aïda Ndiaye jiite leen

fépp fu ñu nekkoon rek ña ngi ba tey koo ñu joxoñ moom la ñuy ànd ak loolu la ñuy def loolu nag sas la bu rëy ci man moo tax ma ne yaakaar googu Kaolack am ko ci man nit ñi am ko ci man du ma ko sànni du ma ko tay du duma ko jaay danaa taxaw ci seen soxla yi ba ngeen xam ne taxaw naa ci sama jaar-jaar ci politique nag lu simple la lu leer la ki nga xam ne moo ma yar di sama sëriñ jàngal moom muy Cheikh Mouhamadul Mamoun yàlla na yàlla yokk leeram di ñaanal bu baax suñu mag suñu soppe suñu xarit suñu àndandoor nekk nekkoon ay cheikh ci ron sëriñ Mamoun muy Cheikh Mansour Mamoun Niass yàlla na yàlla yokk leeram nit ku baax nit ku jàmbaar lépp lu ko waroon rek def na ko ba mat sëkk wax naa keroog ca ziyaare sëñ maamu bi ne def na ci atam yu néew yi loo xam ne nit dund na téeméeri at te defoo moo tax mënuñoo taxaw fii te nuyuñ ko ñaanal ko ñaanal njabootam 2011 ba léegi lañ taxawal mouvement bi yàlla def ñu ànd ak ay góor ñu bari di critiquer naan àndut ak ay politiciens ma ne leen bàyyi leen maag samay góor yi waaye tey lii firnde na li ma leen doon wax ñu ci bëri ci ñoom maa leen jàngal politique ñu ci bari ci ñoom tey xamuñu feneen xamuñ beneen leader man rek lañu xam moo tax ma ànd ak ñoom nag te yàlla tax ñii ma yóbbu leen ci koñ ma defar ko koñ yi doon taa ma defar ko ah, jigéen ñi ma financé leen wax nañ sànq te ba may financé kenn financé wala sax ba léegi kenn financé ko coow leen bi nekk rek mbootaay yi fukki junne amut intérêt amut dara tey am na ci ñoo xam ne seen budget dem na ci onze millions te dégg ngeen ko sànq ñoo loolu laa ànd ak ñii liggéey ak dimbalante doomu aadama doomu aadama dafa foor kenn du leen foye boo gisee bu ma ootee ñu bëri sawar du ma def ni policier def ebal nit ñi ci ay kaar rek ñëw sànni leen déedéet tay ku ñew ci permanence bi sax xolu sedd na guuy ndax añ yaang fi doy ndox maang fi doy loolu moo baax parce que nit dafa foor léegi nag ñi ngi jëm ci élection locale élection locale bu am solo la ci dëkk ndax ñoom ñooy amee suñu avenir fii ak juróomi at te loolu du caaxaan war nañ koo seet bu baax Kaolack nag ñaari cas ñoo fi ne te danaa wax ñaari cas yi ni mu demee waaye la may tëjee damay bàyyi ba ci fin bi danaa ko wax incha allah ki ci njëkk mooy candidat bu njëkk bi muy Serigne Mbuub yàlla def na na mu seet si ma ñu waxtaan ma dugg ci listam léegi nag xalifa bi am na ko yàlla yàggal am ngan Dakar ba mu amee ngan Dakar li may wax yëpp dafa am seede porte parole am Cheikh Mouhamadul Mahi yal na yàlla yokk ko dëgëraay moo ma jokkoog man ne ma sëriñ bi boole na la ci liste bi nga xam ne war nañoo dem audience ak président de la république ma ne ko man de taalibe laa doom laa bu ma boole loolu loolu sharaf la ci man maanaam yokkute la ci man ma ànd moom keroog ba ma àndee sëriñ bi dem ba génn ci audience bi fekk boobu président sëriñ bu ñu ngi jokkoo ñu ngi waxante ñu ngi defante ba am na erreur yu bëri yoo xam ne ni duggoon na ci yàlla def na ma wax ceeg moom samay xalaat orienté ko ba erreur yi amoon yu ci bëri wàññeeku mu nekk nit ku baax wax dëgg yàlla. diiraan bi ñu xamante lu baax rek laa xam ci moom ndax man toujours damay wax ne politique mënta yàq sama jikko ku may xaar ci ma wax la lu ñaaw doo ko dégg ku ma wax lu ñaaw baal naa la ko ku ma ko defit noonu waaye nag audience am te moom président Serigne Boubou wax na ma ne ma président de la république jël na ko audience yéen ñëpp dégg ngeen ko mu wax ko ci rajo Alfayda parce que président de la république képp ku mu oo nga nekk Sénégalais même boo ànd ak moom war ngaa dem wuy jiko boobu la ma laa ko gëj dégg la ma dagg déggatuma ko waxatut ak man te boobu mi ngi bëgg a mat weer muy benn camp bi beneen camp ci des muy coalition Benno Bokk Yaakaar ku ne xam na li ma daj ci parti bi damay wax ne premier ministre sax daju tournée ci Kaolack dem Ziguinchor dem Kolda dem Kanda Kolda dem Kaffrine dem fu ne yendu fu ne ci kawlax ñi xam loolu ñi bëgg a nax président wan ko ne ko doole ji ñoom ñoo ko amee waaye tey ñoom ñëpp weeru nañu xam nañ ne lu ma bokkut du sotti. ñi bàyyi ma fii na ma fi ñukk def lu leen neex loolu la indil problème bi tey moo tax muy ñaari groupe yépp

man toll naa ci foo xam ne ci expérience ak ci xam ko mën naa cee ubbi école fi mu ne di ko jàngale ñu ne ma fi ñukk def lu le neex ca biir audience ba bëggoon nañ maa forcer ne président Abdoulaye gi nii waxal ak moom am na sax ay sos yuñ ci sos ne président daf maa yóbbu foofu daf maa nangam te président man dama yuuxu ndax président ku am yar la ma moom dañoo bokk jikko wax na ma daal ne ma sëñ bi da ngaa ci beneen liste mbooloo mi yëpp di reer te sax même bu ma rusul sax mu rus xalifa bi dafa am yenn wax yoo xam ne en wut ki ma jàngal man yar ma muy sëñ Mamoun nga xam ne eh. fit lañ ko xamee président dëgg la moo jiite ñëpp waaye doomu aadama la ma ne ko maa ngi ci liste ndax sa coalition bi faale wuñ ma 2014 ba nga soxlaa mairie nga xam ne bu ma demee jël mairie bi danga maa oo wax ak man ma ànd ak ñoom ñi gën bii dañ laa gëmal na le ñoom ñoom moom Kaolack te président maa ngi lay xamal ne le mënuñoo gagné Kaolack te bokkuma ci mu ne ma xam naa loolu li ci des nag ay détails la du wax fii dama bëgg rek ñépp xam ne li may sonn ak li ma daj ci politique man taxu population bee tax ñu may àndal ñoo tax bu njëkk nag politique yi baax na rek moom lay def ak rafet njortu ku mu wax ak man rek ma óolu la waaye loolu jeex na fi mu ne daal candidat yep ubbil naa leen sama bunt waaye dama am ñaari charte benn bi ñi ak man di ay góor di ay borom xam-xam di ñu jub nañ leen jox garantie yu leer ne bu ëllëgee buñ àndee luñ bokku danañ bokk ci lay liggéey mairie ba ba nañ jafé jafé yi ëpp ci la waxuma yëpp waaye li ci ëpp ñi def ko point par point parce que man wax naa leen waxati bu may liggéey di sonn di politique askan wi ak Kaolack a tax jafe-jafe Kaolack yi danañ dugal léegi Aboubacar Sall mu wax ko point par point document boobu la ñuy jébbal candidat yëpp ñëpp muy sëriñ Moum muy Mon muy Pape muy Fadel Baro muy ñëpp képp ku ci d'accord cent pour cent ak ko ak koo mën a doon jàppal ne danaa jëlaat caabi mairie bi jox la li ma jàppal mooy danañ jox Aboubacar Sall mu wax condition yi nga xam ne document lañ koy def danañ ko jébbal képp kuy candidat ci Kaolack boo ci d'accord rek ñu ànd ak yow asalaamaaleykum wa